coow yëpp ci jiital sëñ Babacar Sy Mbaye Mansour ak mbooleem seen njabootu Seydi Hadj Malick Sy ñu ngi leen di ziar di leen delloo seen wàccuwaay di leen nuyu bu baax a di wax waa ni li ñuy déglu ñun xam ngeen ko Tiwaawan nag am na lu mu sampoon ci cosaan ñu amoon ko ci élection législative bii passé mooy joxoon ngeen ñu fii victoire boo xam ne amul benn lënt-lënt Tiwaawan nag dafa di sama dëkku bopp ma tànnal ko sama bopp am cofeel boo xam ne moo dox sama digganteeg Tiwaawan kon bu fi ñëwaatee tey donte du may waaye Sénégal yëpp ñoo ne Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye kon dama koy ñëw ci turu Diomaye Faye bi nga xam ne ci ñetti fan bu soobee yàlla wala ñeenti fan mooy dégg bu soobee yàlla président de république du Sénégal li nga xam ne defoon nañ ko ci élection législative ba département Tivaouane yépp mujj ci loxo Yewwi Askan Wi mujj ci loxo si coalition lu ko raw lañu bëgg Tivaouane taxawee ko ba dimanche incha bu ñuy lim département yi nga xam ne ñoo ëppale score wala commune yoo xam ne ñoo ëppale score jëmale ko ci président Diomaye Faye ñu ne Tivaouane mooy premier est-ce que waa Tivaouane mun ngeen garanti loolu kon am na loo xam ne sax mun na bañ a gudd munoon naa bañ a ñëw sax campagne bi defe naa waaye campagne bi li ci des bëriwul liñ leen di ñaan nag suba moo ci des jeudi ak gannaaw suba vendredi xam nga nag liggéey toujours fi mu fi ñu koy yeggalee fi ñuy wax finition bi moo ëpp solo mun nga tabax bâtiment bu dëgër waaye dem jënd karo yu bon wala peinture bu rafetul ku romb daal kër gi baaxul kon fi mu ngi ci peinture ak taro ak sanitaire mooy ñaari fan yi des ci campagne bi dañu bëggoon kenn ku ne ci yéen bu doon benn la def na ful def ko juróom parce que victoire bi ñu bëgg am victoire bi ñu bëgg a am ci suñu gars yi warul doon victoire bu am lënt-lënt ñu naan ay cinquante virgule cinq pour la. wala ay déedéet dañu bëgg nu mu tuuti tuuti mu dem 60 wala 70 pour cent kon dañu wéyale liggéey bi li wax nag fii ci wax wax ko waa Sénégal yëpp am na benn application boo xam ne defar nañ ko ñiy jëfandikoo internet muy warndombo point sn parce que ñoom jaxase carte gi ñuy def kenn mën naa jot dem bureau de vote bi mu doon wootee ñu ne ko nekkatoo ci bureau de vote bi waaye ku dugg ci application boobu Warndombo point sn dina la wax yow sa bureau de vote fan la bu dee changé lañ ko di ko xam bu dee changé ko di ko xam bu ko defee dimanche boo koy da dem directement def sa farata loolu am solo ñaareel bi mooy nañu jëli carte électeur yi ngir yàlla bu amee ñu ko jëleegul man xam naa ni quatre-vingt-dix pour cent ndaw ñu jëli nañ ko ba pare waaye 10 pour cent boobu des xeebuñu ko dem leen ngeen jëri carte électeur yi dimanche teel leen jóg yéen ñëpp ngeen dem voté yi waaye bu ngeen voté ba noppi surtout jeunes yi mag ñi moom bu ñu wotee pare dañuy dem kër ga noppalu waaye jeunes yi bu ngeen wotee ngir yàlla xam leen ni élection bi mooy seen avenir ne ñaar moo am soit ñu bàyyi tappale bi fi nekkoon boobu ba léegi mu wéy ci sàcc xaalisu réew mi te tourné xaalis bi te réew mi tey la ko tubaab yi wala ñu ne dañuy soppi définitivement daal di moom suñu réew moom suñu bopp kon su ngeen votee ba pare toogu leen bu leen sori bureau de vote leen vote bi na ngeen surveillé vote bi ku ñëw ci biir centre yi bu nga def naka sunu noonu na ngeen ko jëflanteeg moom bu ko defee bu ko defee ba heure bi ñu tëj bureau de vote yi yi ba pare mu leer ni fii Tivaouane président Diomaye Faye am na fi 75 pour cent bu boobaa mën nañu génn dem jubilé dem dugg ci dëkk bi kontaan xam ni yàlla liñ ko doon ñaan jot na ko. boobaa dañuy commencé rek liggéey suñu réew kon waa Tivaouane ñu ngi leen gërëm di leen sant heure bii heure ndogu la ñooñu ñëw ñëpp dem ndogu ci jàmm te di ñaan yàlla mooy ñu ndam ci barke wóoru kooku asalaamaaleykum